suñ asan daal di xool ci kaw asamaan sëgg daan su boroom xamal na ma ne bërëb bi toxal nañ ko indi nañ ko njaareem suñ fàllu fekk ci ko si lool si la suñ fàllu bind bi leetar jox sëñ حمدا لمنزل الدنا والدين ومنزل الشفاء والدواء من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baadahu seydina muhammadun rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mbokk jullit ñi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam tey ñu fas yéene jéema waxtaane nitu yàlla bu màgg bu tedd bu ñu wax sëriñ Al Hassane radiallahu anhu ñu jéem sànni ay kàddu liñ xam ci moom liñ dégg mu waxal boppam ak liñ dégg ci ñi ko jege woon muy sëriñ Alassane Salam sëriñ Alassane Salam ñu tënk lenn rek ci ay jaar-jaaram ci ndawam ak jéem a tënk lenn ci lu jiitu muy ñëw Sénégal ci jaar-jaaram waaye tamit balaa ñu tàmbali ñi ngi ñaan ci yàlla moom muy buuru màgg bu kawe bi xam ne lépp lu am moo ko amal maa ngi ñaan mu amal lépp loo xam te ne wax naa ko fi nopp ya koy dégg maa ñaan suñu boroom jël sama kàddu yi tolloole ko ak nopp ya koy dégg bañ mën koo dégg gëm ko ndax dañuy waxtaan ak jëmm joo xamante ne nii képp ku weddi ay mbiram suñu boroom dana dëpp see ndab ba saa taxaw te kenn du ko dippi daana waxee wax jooju sañ-sañ boobu daana ko doxee fépp fu ma dem jox ma cër ba ma suñu boroom jox nangul ma ma dippi seen ndab ba sa taxaw te kenn du ko dëpp fu ma dem ñu def safaan bu ma dëpp seen ndab ba sa taxaw te kenn du ko dippi pour tàmbali daana waxit ne bu le ma di waxtaanee fuñ ma gëmewut ndax tey day man maa ngi tudd alxasan sant salaam ndax àjjana bu ki ëllëgee ku fa nar a dugg du ngay tudd sant salaam moo waral sama yoon bu mujj bii ma ñëw ma xam ne àdduna té bu ko regee ñëpp saa lañu sant ma tàmbali ko sant fii yóbbaale ko té nak jamm rek tax suñu borom binduma néna kenn xamuma ku lu suñu borom mo bind té binduma lu yëmale ci jamm ku yëmale tax a jóg nag ay wax ay wax ay mbiram nit ñi di ci loru ay di lañ ci top koku nak mat na di maytu motax day ñaan yalla rek lepp luñ fi wax mu deppale ko nopp ñukoy dégg mën ko dégg jarñu ci kep ko xam na ko te do gëm ma ngi ñaan yalla bo dégg wax ci ci katanu borom bi sañu ma baña wax nak ndax dañ ma laaj te ay tondoom ñoma laaj ci mom ngir ma wax waye xam nañ ne it nit yalla poson bi gëna graw bi gëna yémi moy mooy waxal nit yalla lu mu waxut wala waxal ko lu mu defut loko waxal ta defu ko lu ko nit ñi bëgg bëgg bëgg musiba dana la ci fekk lo wax ba nit ñi bëgg ko te defu ko ni musiba na la fekk lo yokk telam wax musiba na la fekk kon loolu xam nañ ko kon fas yéene fi wax lenn lo xamanteni ni waxuko wala lo xamanteni def ko ci aduna bi nit ñi tek seen bët ñu tambali seigne assane salam ci ci ndawam bi mi nekk tu tank soxna fat job mi xam moy wajurum bu jigen seigne assane salam bi mi nekk ndaw la tambali yi mi def bi mi nekk ndaw da na def kilifa gum gis waxla say bakar ya nga def waxal na ngay def yalla bom teggiko daana def mi nekk ndaw di gis nit yor bagage wala yor saak wala yor alalam mu këf ko jël ko dem saraxe ji ko ba defee ñaan da xale bi day sàcc doomu Fatou Diop bi day sàcc sunu maam Fatou daat koy jël yóbbu ko ci ku ñuy wax Malick Kandji nit yàlla loolu mag ci jamono joojee xam ne yàlla mayoon na ko lépp lu dal nit su jëlee këllam kam yoroon bind ci li muy bind def ci ndox boo ko naan boo naanee diw lépp la daloon day dañ bi ko sun mam yobbo sono fat job sono fat job mi mi waajur bu jigen mo netali ci ban bu ñu arisé ko mu ne mu ko fa yobbo serigne mi daat koy xol sono fat job jox ko ëmbu yéré jamono ñu ëmbu yéré ngay joxé ñu ko joxé ëmbu yéré bi serigne bi xool daan ne ko wax nga dëgg kii de li nees dindi daal di jël kël gi bind bind bind bind ba bind bind mi ndaj mu def ci ndox daan ne jox daan ne jox suñu asan salaam ne ko naanal te nga diw bu ko defee lépp noonu ci yow mu dee rab daal léppay dañ suñu salaam ne ko du naan duma diw ndax yow mi day danga ma xamut waaye man day xam naa la sa per course ba ko doon ca ca ba baabal xunut ñoroon fer per yi ci laa bokk sama jaaro xaalis ba léegi falaax bàyyi jëleeguma ko yaa ma xamut waaye man xam naa la tel ko ci ni ko it sa ni mi nga bind nang ci juum ndax nang ko maax ci souf te ci kaw nga ko war mas ndax lol malay wax ca kaw la won te baabul xunut beur ma nga déggoon juróom ñaari asman muy jaay te su jaaje tun su jaaja kaana kaw ko bon duruyun duruyun seen salam ne ko man mi la won serigne dar djuk tan jug fal djuk djugal djugal djugal jugal jugal sa xam mo man mi don sax ki may fa feñal ko yére ko demal soxna fat Diop delu keur ga ak sëñ Assane salam bob mi nek xale bu ndaw tam delo soxna sen xawa dal tuti tambali wat indon def dimbal nit ñi di dimbal nit te nit ñi xamuñu lu waral muy def lolu biru baatin ku sun borom tax baatin ak ku ko joxut ñoo bok buy def ay manam da nga yaakar ne ki ak njublan la ci jublu wala dara fek dimbal la ma wax tax a jub si la ko jël ko sunu mam Cheikh Ibrahima Fall dan dia yal na yàlla yokk leeram taas ci barkeem ñu koy boy maam Seraan Fall fal, Seraan Fall satalam gas kàmb gu xóot ba loxo bi dugg ci mu jël satali sot ci ndox jël kursam def wax ay baat bàyyi kurus bi ndox mi génne ba muy ñett yoon daal ne soxna Faat Jóob jugal mu jug mu ne ko fekk lu jitloo soxna Faat Jóob jox tank tank lañ daan wax dëm lañ daan jaaré mag ñi ñu ñaanal la ndeysaan mam seran fall ci batin bu kawé bi ak liko sun borom may daan nako jugal mu juk mu ne ko ki du sa morom nday te du sa morom bay jël ko nga yobbu ko kërëm sa kër da nga warmal ko ki du xalé da am lu yalla def ci mom na fat job neena bam fa jugé dërëm ko mam seran fall jox neena mbedd bu mu jaar talibé dañ koy jox ba ni mu égg kërëm bam fu fa jugee te bam mu fa jugee isaan salaam dalal tuuti tàmbaliwaat ñu def sonu Fatou Diop jëlati ko si insan salam daan ne ko saa ndey taxawal mu taxaw mu ne ko ñii nga may yobu li na ci man mu ñu ko dindi ci man ndax su borom ko ci man daf ma yoni dima liggeelo te limay liggeelo app app ab jotagut bu joté dana ko yow nak nga sante yalla ndax ñu bari bëggon nañ ma nek sen doom bëggon nañ ma jur ba jaaré ci ñoom gane aduna ngir liggé sa borom li ma koy liggéeyal yow mi ko suñu borom defal nak nga sant yalla te nga dem gëd nga tok xaar ba fuma ñew ndax am na fuma feñon jamono am lo fu bàyyi won ci ndénkaane moom lay jëlé ci teunk rek ndax xam naa du fi xaj soxna fa jop delu kër ga seigne assane di dem jëli bagage yoy indi ko am na lu xew ci jëli ba sax waye xam naa comme dañuy teunk rek lepp du ci xaj ba mu demee jël bagage ñëwaat indi ko ca kër ga denc ko muy këram googu lu jiitu it muy ñëw njaareem xombal la newoon sëriñ Fàddilu Mbàkke radiallahu anhu moo ko moo sàkk ci moom mu jógee xombal ñëw njaareem ñu ngi ko ñëwee wax ko si insan salaam ca xombal ne ko dangaa ma bëgg nga ñëw jege si ma ñëw Tuubaa dend man jege ma sëñ Assane xool ci kaw asamaan sëgg daan ne borom xamal na ma ne bërëb bi toxal nañ ko indi nañ ko njaareem suñ Fallou fekk ci ko si loolu si la sëñ Fallou bind bi leetar jox sëñ Caane saar moo njëkk a nekk xalifa sëriñ Mbay saar ci njaareem si keroog sëñ Mbay Sarr ba mu jël leetar bi dafa jëloo leetar bi ba mu lire leetar bi dafa ko jël lekk ko wann ko doomu suñ tubaa du bind mukk leeru suñ tubaa du bind mukk ci loxom ku tolni seigne fallu lettre bobu ñukay sanni da ko jël lek barké loko dal di jël njabot gi dajal leen yobbu yobbu leen fa seigne fallu bëgg dëkk seigne assane salam té fofu seigne assane dox né seigne fallu sumi ta seigne assane sumi sumi dalam dox ay jéego tek tankam né seigne fallu fi la bëreub fi la seigne fallu joxe ndigal ñu defar fofu fofu seigne tiare sar mu nekk nekk xalif seigne bay ak njabot gi ñoko defar seigne tiare sar jël dem kërëm jël ñetti neegu ñax indi ko sampal ko foofu si Inane jël ay néegam indi ko si Inane Salaam sampal ko foofu ba loolu weesoo suñu Fallou Mbacke moo ko jël ca déwén sa ko màkk tënk rek mi ngi ko yóbbu màkk la fa xew yépp tamit amaa du fi xaj am na yeneen yeneen mbir yu fa yu yu fa jaar. ci ci ci ci ci liñ mën a liñ mën a liñ mën a ndax xam naa ne.